sëriñ Masamba Diop radiallahu taala anhu bi mu tawatee tawati làqu sëriñ Tuubaa xaadalawo law maxtaar lawo yewaloon na fa ñaar ñu ko doon seet si ñu ngi ci nettali téeméer bi ak juróom ñaar bi mu làqoo itam mel na ni sëriñ bi xaadalawo law maxtaara moo digle ñu bàyyi ko foofee ca Daaru Kaam bañ koo indi Tuubaa loolu sëriñ bi def day xamle ni day xamle baaxul seeti ku tawat te loolu bokk na ci xaqi wa jullit ci mbokkam walaw aalam